waxad xaala sallallahu alayhi wa sallama yonent bi yal ko yàlla dolli teraanga ak jàmm wax na ne man ahaana zaaliman képp koo xam ne yaa ngay dimbale ab tooñkat ca tooñam googa sallatahoo laahu alayhi sunu boroom dina wëlbati tooñkat ba muy dimbale mu jël ak tooñam xëppaat ko ko moom moomee ko doon dimbale yonent bi nee na waman talaba ridahum képp kuy sàkku seen ngërëm ñoom tooñkat ya bi suxti leexi ci di merloo yàlla saxitallaahu alayhi meram yàlla dina wàcc ci ñoom boole ca wa asqatuhum alayhi meram tooñkat ya muy dimbale dinañu wëlbatiku wàccaat ci ñoom ñu boole nag yenu ñaari musiba meram yàlla ak meram tooñkat lépp wëlbati wàccaat ci seen kaw yal yàlla musal ci matadi googu yonent bi nee na wala yaxiqul makru sayyi'u ilaa bi ahlihi duñu jagoo mukk ña nga xam ne ñooy fexe pexe yu bon ya ndareedu mbon ak pexe yooyee daawul bati ko wàcc ca seen kaw kon lépp lu waay rendi ci sa loxo lay nàcc sëriñ Tuubaa nee na wal yafrax na ngeen buur mooy na ngeen gaaw ilal wu dooxi jëm ci di jàpp wasalaati ak di julli wayurwaa nettali wees na anna laaha naka yàlla sunu boroom taala kay aji kawe xaala lii Muusa waxoon na jëmale ca yonent yàlla Muusa alayhi salaam yal na yàlla dolli musalam ga sunu borom ne yonent yàlla Muusa isaa taxa wafta bu dee danga ragal sultaanan ay buur fatawadda na nga jàpp waamur ahlaka te nga digal sak njaboot ñuy jàpp bi salawaati te boole ca di julli ndax fa ina man naka ka nga xam ne tawadda dafa saxoo njàpp kaana nekk na fi amaanillaahi ci kaaraangeek sunu boroom mi ma ci lépp loo xam ne yaxaafu ma koy ragal sunu boroom dina ko aar minhu ca loolee wa yuksiru na cay boole moom jullit muy baril min xawlin ci ay waxam allahuma yow sama boroom inni ya naka man sa jaam bii ahonsu bika maa ngi sàkku nga musal ma min sari fulaanin ci ayu diw ayu diw moomu nag mooy ayu lépp lu mu ragal mu tudd loola mu ragal ne yow yàlla yal nag musal ci aw ayam wa ahzaabihi yal nag ma musal ci ayu ñi ànd ak moom wa ahwaanihi yal musal ci ay ndaw ya nga xam ne moo leen di yonni an yafruta alla ya bu ca kenn rëccee ba wutal si ma ngir lor ma ahadun ku mu man di doon ca ñoo nga xam ne ñooy way tooñ yay loraate yal nag ma musal ca seenu ay ak ca seeni lor aw an yat xaa mbaa kenn feeñal ak mbewam ba daw jubal si ma ngir yow sunu baraam yal nag ma musal ca aw ayam xas ndax tedd na lool jaaru ko sëb dëkkaale yow sunu baraam muy jaam bi nga xam ne yow rek la am yow rek la xam te yow rek lay jaamu kooku ku la yow sunu boroom wa jàlla te kowe na lool sanaauka tagg wam lay tagg moom sa jaam boobu te saw tagg tamit dafa kowe yow sunu boroom wala ilaha xayruka amul benn buur budut yow yàlla yow sunu boroom digis nga ma ngi koy tagg laa ilaha illallahu amul benn buur budut yàlla al azimu kay aji màgg al alimu kay aji lewet laa ilaha illa allahu amut benn buur budut yàlla rabbul arsil azimi kay boroom aras mu magg ma subaanaka tudd naa sa leer gi te jombale lépp lu yellul ci yow sunu boroom tabaarakallaahu yal nga barkeel yow sunu boroom rabbul arsil azim yaay boroom aras mu réy laa ilaha illa amut benn buur budut yow yàlla al azim kay aji màgg al alimu yaay aji lewet laa ilaha illallahu amut benn buur burut yàlla rabbul arsil azimi kay boroom aras mu rëy ma lii lépp aw tagg la aras moo ëpp àddina moo ëpp addina ak juróom-ñaari asamaaw boo ko boole woon ka nga xam ne moo sàkk aras mooma nag te moom ko defar ko teg ko fa mu nekk saa soo ne yaa moom aras rek yaa ngay tagg yàlla ndax aras dafa rëy moo tax mu di ko tagg fii te ku bëgg yalla yërëm la deel neexal yàlla te di ko woy di ko bàkk di ko kañ ci tudd yooyu moo tax bu ko tuddee rek réel ko bakk ko kañ ko màggal ko subaanaka tudd naa sa sellig yow sunu boroom tabaaraka laahu rabbul arsil azimi yow sunu boroom yal na nga barkeel yow mi boroom aras mu màgg ma subhaana rabbi samawaati sabhin tudd naa sa sellig yow sunu boroom te di la jombale lépp lu yellul ca yow yow mi boroom asamaaw sa juróom ñaar wa rabbil arsil asimi yow mi boroom aras mu rëy ma yaa ayyu yow mi aji dundal neex yaa xayoomu yow mi taxawe lépp bi raxamatika ci sa yërmandey bopp astaxiisu maa ngi sàkkoo xettaliku ci yow sunu boroom allahuma yow sunu boroom raxmatuka sa yërmande arjo moom lanu yaakaar fala takkil ni ilaa nafsi bu ma bàyyi benn yoon maak sama bopp tarfata aynin lu tollook xepe xepe ndax ko mata di laa a aar déema dimbale waslih lii sax ni yàlla nag ma selalal say mbir kulluhoo lépp laa ilaha illa anta amul benn buur bu dut yow sunu boroom subhaanaka tudd naa sa sel gi yow sunu boroom di la jombale lépp lu yellul ci yow inni naka man sa jaam bi kuntu nekk naa mina saalimiina ca way tooñ ya yal nag ma jéggal yaa ngi jàng téereb sëriñ Tuuba bi ñu naan silkul jawahir yaa ngi ci paaj page 49 wasalaamualeykum